projet concept mooy lan balaa ñuy sóobu ci biir waxtaan bi ginnaaw buñ la nuyoo. Euh, salaamaaleykum euh, euh, Mor Gueye maa ngi lay maa sant di nuyu mboolem auditeur ak auditrice rajo Afia. Uh-huh. di li ma laaj itam am na solo dama koy gàttal rek ndaxte xam naa ni sama naatango jaaroon na ci. waaye ONG concept comme ni ko xamee rek euh, ONG développement la. Ah. donc mi euh, ngi am siège am fii ci Ndakaaru waaye nag euh, am na fu bëree bëri foo xamante ne mu fa teew donc ONG bi nag dañuy faral di wax nii li ñu am rek la ñu mën a séddoo mooy nous sommes ce que nous donc bu doon li nga xamante ne am na solo Amadou Thion mooy président. Ah. d' accord ginnaaw euh, yooyu ñu jégaluwaat Laurent Dieng moom mooy chargé de suivi ci biir euh, li nga xam ne chargé de suivi évaluation ci biir euh, ONG concept moom lañu ñu déglu léegi yi ñëw nag ci xawaa mi nga xamante ni mooy animatrice su li nga xamante ni mooy projet bi nuy mel xawaa jaaroon nga fi tey ñëwaat nga xam naa ne lu bëri sax doo doo fi nekk sax di la di la ci sonal waaye xam naa ne lu bëri tey jii déglu muy nit mm. ndorteel rek rôle bi nga xamante ni tey jii. moom la groupement de femmes am ci biir euh, li nga xam ne mooy projet yi loolu laa bëgg ñu njëkk cee wax ba pare. incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, moom maa ngi lay mhm. di nuyu mbokk auditeurs yi ak auditrices yi. Ah, di gërëm Aminata Ndiaye. mooy trésorière générale ci GIE e, ADC. Ah. di gërëm Laurent Diène di suivi évaluation projet RFA. voilà ma ñëwaat ci tuuti rek rôle bi moom mën naa ne. waaw moom les femmes. mooy jigéen ñi ñoo nekk au cœur du projet. d'accord parce que lépp li ñuy def ci jigéen yi lañ koy jaaree. Ah. li ci ëpp am na ay góor mais jigéen yi ñoo ci ñoo ci ñoo ci ëpp. ñoo ci ëppale. parce que parce que sensibilisation des leaders d'opinion yi ñuy def. dafay am ay jigéen te seetlu naa ci li ma gis jigéen yi ñoo fay gën a bëri. Mhm. démonstration culinaire yi. jigéen yi lañ koy defandoon. mobilisation à la vente. Mhm. ñoom la mën naa ne ñoom ñoo nekk au cœur du projet. parce que ñoom ñooy jigéen ñi bàyyi góor non yaa ngi ci sax ah, mais jigéen yi ci li ma gis ah pas damay faral jigéen mais jigéen ñoo ëpp Pastef. ah parce que ñoom ñooy ay acteurs lañ ay acteurs lañ en même temps ñoom ñoo koy consommé waat. góor yaa ngi ci biir. gis nga sama tonton Laurent fii sama wet. waaw Laurent fii fii du góor ña koy defar. waaw góor ñoo koy defal waaye nag góor ñi aussi ñooy joxe ñu jënd fourneau yi. waaw ñoom am nañ si njëriñ waaye nag euh, li mu wax aussi neexut a neexut a dindi daal. kon nag kay faral fi nekk nii ko bu baax a baax moom euh, projet bi. Euh, dañuy ñëw rek ci benn soxla moom tamit mooy membre foofu nga xamante ni mooy waa jëppal ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax soxna Aminata Ndiaye. soxna daa soxna Aminata man li ma bëgg a xam rek mooy nga wax ma balaa may dugg ci tontu yeeg laaj yi. Euh, njëriñ bi Fourno jàmbaar am ba pare. en tant que yow mère de famille. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ziar ñëpp tamit. Hmm. Fourno bi Fourno yi am na njëriñ bu bari parce que c'est trop c'est très économique. d'accord c'est économique de trop. Mhm. daf lay yaxanal lu bari daal. parce hmm. que ni nga daan utiliser gaz fekkee da nga am sa fourneau. day wàññeeku daal. voilà ah. wala utiliser deux gaz dans le mois mën nga utiliser un gaz dans le mois. parce que sa kanam li ngay daan dépensé dafay wàññeeku. d' accord ah. waaw mel ni jëppal fi neex na bi nga leen indilee projet bi. jëppal yàggoon na neex mais dafa gën a neex rek. Ah, mm-hmm. <laughs> léegi nag euh, ñu ñu waxtaan nag bu baax a baax jëm ci biir li nga xamante ni tey jii mooy thème émission bi Laurent euh, groupement yi. Euh, ñan ñan yan pour pour xam rôle bi ñuy joué ndax sànq am na lu lu lu lu xaw a junj mais en tant que yow mi nga yaay évalué tey jii euh, groupement yi rôle bi ñuy joué yow naka nga ko jàngatee. waaw euh, bu ñu waxee groupement yi euh, dañu wax ni ñoom ci wàllu seen wàllu bopp. Ah. taxawaay bi ñu am si projet bi taxawaay bu am solo. d'accord li tax ndaxte ñoom. dañuy jëfandikoo la nga xamante ne mooy fourneau yi ñoom ñuy jaay fourneau yi. d'accord te dañu war a doon ay entrepreneur mhm. donc soo ko seetloo non seulement dañ koy jëfandikoo waaye dañ ci ut koo. d'accord kon nga gis ne ñaar am na daal. gis nga. na mais dina ñëwaat. gis seen bopp. d'accord loolu tamit am na si solo trop. Mhm. te dafa am benn borom xam-xam bu doon wax ni. Mm-hmm. ku dimbale jigéen rek dimbale nga àdduna. d'accord d'accord euh, en tant que chargé de suivi euh, euh, ñaatu groupement fu nekk nii ngeen ngeen liggéeyal loolu. ah yaatu na parce que tamit bu fekkee ne dañ ko bëgg a yemale si région de Dakar rek. Ah. nous travaillons avec des réseaux de groupement c'est-à-dire boo koy lim. Mm-hmm. tey war na weesu sax ci téeméer yi di dem. dem waaw téeméer yi laa wax téeméer yi. Mm-hmm. ndaxte wolof dafa ne téeméer ne téeméer yi. donc kon ba gis ni euh, euh, lim bi nii ci tembe nii nañu la ko wax waaw ba mu exact waaye xam naa ni ñu ngi ci téeméer yi romb ngeen ko waaw romb nañ ko donc yeggaguñu si junni yi hmm. mais ñu ngi si téeméer yi d'accord mun nañ jàpp ni fi mu nii ak projet bi comme dañ ba deux mille vingt cinq donc il faut daal ñu xaw a xayma rek waaye fi ngeen toll nii gis ngeen tamit satisfaction ci li nga xam ni yéen koy liggéey. non actuellement nii kay euh, nit ñaa ngi fëgg buntu yi. njort ngeen ne daal avancé te ñu ngi leen ciy gërëm yéen rajo yi. parce que yéen rajo yi tamit daf ngeen seen liggéey. Mhm. te euh, émission yi gaa yi ci faral di ko déggu waaw te ñoom it di faral ku kenn ku ci ne. Euh, di jéem a laajte tamit naka ngay def ku dugg ci biir. waaw kon donc gis nañu ne kon. Mhm. lëkkaloo bi ñu am ak tamit am na jëriñ waaye dafa fekk itam euh, ONG concept yàgg na liggéey ak ay jigéen. d'accord donc parce que ñun nous avons beaucoup de réseaux. Mm-hmm. yoo xam ne ci liggéey ak ay jigéen. am na ay coopératives yu ay jigéen am na ay réseaux comme par exemple ASEC yi association des ASEC yoo xamante ne law na fii ba ay Médina. Mm-hmm. donc kii ñoo xam am na ëpp na ay ñaar téeméeri membres. sans compter ñeneen ñi nga xam bokkuñu woon ci suñu base de données. tey animatrice bi moo dem. identifier leen sur le terrain. comme mel ni bi tey. nga xamante ni moo toog ñu représenté mboolem groupement tey ci la nga xamante ne moom mooy fii si Dakar. Hmm. donc euh, gis nga donc nous on parle même de département de Dakar actuellement nii. Hmm. alors que ñun dans toute la région de Dakar ñu ngi ci. Hmm. ñu ngi Diourbel dans toute la région ñu ngi Kaolack dans toute la région. te ñu ngi Kaffrine aussi dans toute la région. donc boo jëlee mboole seen. donc yegg nañu junni. alhamdulilah kon sant yàlla bu baax. waaw moo ne seet mais li ma doon wax sànq Dakar rek la woon. d' accord waaye dafa mel ni kon liggéey bi fi mu ne nii xaw a gën naa xar tànk tugayam ngir gën a xarañ ci liggéey bi parce que en tant animatrice fi mu nekk nii romb nañu ay euh, ni ko waa yi waxee sans di dem ci ci ci. mun nañ jàpp ni daal fi ne liggéey bi kon fi ne da ngay gën a gën a gën xarañ daal ci li ngay ñoo xam nga xam nga liggéey terrain da ngay jàng. à chaque fois noo gën a wàccee ci terrain gën a jàng. Mhm. te gis tam di tase ay ñoo xamante ne. yaa yaa nekk animatrice bi yaa nekk animatrice projet bi mais ñi ñoo xamante ne am nañ expérience te di la dolli expérience tamit ma koy rafetlu lool. Mhm. mais tam ma ñëwaat tam xam nga. groupement yi bëgg lancé wu bëri na comme kii wax na la ko mais tam demande offre bi des fois defe naa moo manqué xaw ma demande xaw ma offre nan laa koy expliqué loolu nag damay interpellé waa GIZ ñoom ñiy formé ñiy defar producteurs yi ñu gën ñu gën ñu gën ñoo mettre en rapport ak ñoom waaw ñu gën a xam ñi ñi koy defar parce que nit ñi bëri nañ mm-hmm. mais des fois ma gis ne kii na laa koy waxee yéen ñii ñu ngi ñu ngi ay ay pour pour jot jot ci suñu noyyi bi loolu. dinañ ci dinañ ci ñëw léegi moom moom dafa rek. waaye ñun ñu ngi si tànku lëkkale. waaw ndaxte koo ñi nga xamante ne ñoo ko soxla. Mm-hmm. ak ne ñoo koy defar. waaw ñooñu ñëpp ñun ñu ngi si tànku. lëkkale leen. yéene leen boole. voilà comme ça bu ñu leen yéenee boole ba nga xam ba ñuy waxtaan parce que dañ ko bëgg a def. départemental. Mm-hmm. donc amaana sax euh, bu ñu koy def yéen rajo yi di ngeen ñëw couvrir ko. donc comme ça ngeen gis ni euh, yàqare yooyu. Mm-hmm. dana dem ba féete boor la. d' accord damay ñëwaat ci euh, soxna Aminata ndax mm-hmm. comme moom groupe si groupe membre la groupement développement action développement bu jëppal. soxna Aminata naka ngeen découvrir découvrir maanaam nan ngeen fexe ba gis projet bi ba bokk ci. ñun projet bi nag suñu président digal bu baax micro bi projet bi suñu président Pape Koulé. Pape Koulé moom moo ñu. moom non non moom moo ñëw moom moo wuti ji kii partenaire yi. parce que commencement bi dafa ñëw ni li dañu créé GIE bi. mu ni il doit tout faire pour wutal ñu ay partenaires. d' parce que suñu GIE ñu ay partenariat la ñuy liggéeyal. wutuñu ay comme par exemple ñuy financé di ñu lebal xaalis ak hmm. koo xam ne dañuy ñëw ñu liggéeyandoo ensemble. ñu gis ci boppam ñu gis ci suñu bopp. mais mais naka la naka lay tëddee day ñëw indi euh, fourneau yeeg affaire yi yooyu ngeen tasaare wala nan. waaw mais dañuy au début xam nga tam lépp loo gis dafa am ci nu mu commencé au hmm. début dañuy jënd parce que ñi doogay commencé ak moom. dañuy dem ci moom. Hmm. mu jaay ñu ñu ñëw ñu jaayaat ko. waaw nañu ci sama bopp da ngeen di jënd jaayaat seen biir groupement. waaw dañuy jënd jaayaat suñu biir groupement après mais par la suite parce que bi ñu toogee ba waxtaan ak moom. Mm-hmm. daf ni comme que ñu ngi doogay commencé commencement bi dañuy jënd. ñu jaay ñu mais après nañ dem ba de telle sorte que moom daf ñuy mm-hmm. day defar jox ñu. Mm-hmm. ñu jaay ñu jox ko xaalisam. Mm-hmm. lii daal mais gis ngeen ci seen bopp. Mm, waaw alhamdulilah ñu ngi ciy gis suñu bopp naaf na. kon daal Pape Touré jàmbaar. Mm, ah macha allah jàmbaar la eh, jàmbaar la. dëgg <laughs> damay damay ñëw ci benn point bu am solo mooy euh, critère de sélection groupement yi en tant que chargé de. pro euh, suivi naka ngeen di lu ni mel parce que nag groupement yu bëri nañu. waaw am na solo eh, xam nga groupement yi sax boo leen jëlee da nga ci ñetti ñetti fànn. Hmm. am na ñoo xamante ne eh, groupement bi eh, njiit li kese moom ngay gis. waaw dara newul ci ginnaaw. léegi te lu la. wala la koy koo koy dox lépp. waaw waaye bu demee ba dara desutul pour dajale nit da xam ni kat groupement bi kenn kese moo ko ŋànk. donc y' a pas de démocratie amul ci biir. Mm-hmm. donc xàcceendoo dóorandoo day ñàkk foofu. mu am ci ñoo xamante ne dañoo dañoo nekk si diggante dañoo xamut. Mm-hmm. maanaam dañuy door a waaye dañoo xamut bëgg ku leen xamal. d'accord mu am nag ñoo xamante ne yàgg nañu ci liggéey bi di si def ay jaloore. Mm-hmm. bëgg nag euh, ce nouveau produit la ñu jël ko boole ko ci la nga xam moom la ñu waaye ñun. képp kuñ ci gis tamit dañuy jéem a liggéey ak yow pour jéem la gunge. parce que ñun duñu duñu beddi kenn. mais ki nga xamante ne moom dafa yaakaar ne moom moom kese moo war a buum moo war a buumi. moom day mel ni moom moom moom ñëpp. mu mel ni genre meeru mbootaay. Hmm. ñu mel noonu dañ leen di sensibiliser jéem a xool naka la ñuy duggee ci la nga xamante ne mooy démocratiser. li nga xamante ne mooy seen ànd bi hmm. ñi nga xamante ne nag jotuñoo dañuy door a door amuñu tamit ay yenn euh, expérience yi wala yi demee noonu hmm. dañ leen di indil lu ñuy wax naa formation donc dañ leen di former sa tàggat leen ak yu demee noonu ci hmm. ñi nga xamante ne nag itam ñooña dañoo yàgg ci mbir mi xam bu baax c'est des modèles ñooñu tamit dañ leen di faral sax di leen lëkkale ak ñeneen pour ñu door ay relais pour mën a dimbale ña nga xamante ne mooy ñeneen ña kon ngeen gis ni Euh, critère de sélection bi. Mm-hmm. parce que bëgguñu beddi kenn parce que li projet bi boo ko xoolee njeexitalam. Mm-hmm. moo di ni naka la ñuy def ba niir bi nga xamante ne tey ñun doomu aadama yi ñu koy jéem a yàq. Mm-hmm. ba tax tey euh, ñuy yëg tàngoor yeeg ñoo leen képp ku ci mën a jàpp ba jënd si fourneau yi. ba mën ci liggéey ba loolu mën ñoo dimbali. yow da ngay nekk ci biir. kon fii amul trop lu ñuy wax beddi. waaye danañu identifier d'abord. waxtaan ak yow. Mhm. waaye li si gën solo mooy naka la groupement bi ji mën a duggee ci njaay mi. waaw ndaxte dugg ci njaay mi ñun kese duñ la bàyyi noonu cest à am na lu ñuy wax coaching muy gunge. waaw am na lu ñuy wax tàggat di formation. Mhm. te loolu lépp animatrice bi nga xamante ne tey en tout cas animatrice zone. waaw comme ñu ngi ci Dakar. Mhm. ku mel ni Xawa Diallo tey madame Ndiaye moom day def lu ñuy wax benn plan de coaching ak plan formation. d'accord ci wàllu entrepreneuriat. Mm-hmm. parce que ñoom am nañu compétence yi am nañu xam-xam bi am nañu xarañte bi. Mm-hmm. léeg-léeg nag ñu woo ñu comme ñu ñu def GIE bi. Mm-hmm. ma ñëw xaaw cee am la ma ca la ma ca laal. loo ci dugal rek waaw waaye waaye ñoom daal ñoo yor lépp daal lépp moom animatrice bi. exact waaw mais doo ko bàyyi lépp moom foog nga ñëw jàpp ci. parce que euh, loolu la ñuy wax nag càmm yi tamit am nañ ci solo daal. exact am nañ solo si biir euh, projet bi ñu fàttali tey jii yéen a ngi ci rajo Afia FM. ONG concept lëkkaloo ci ak la 93 point 0 tey ñu waxtaanee tamit foyer amélioré maanaam nag promotion fourneau jàmbaar yi nga xamante ni mbokk yi yéen a koy gis bu baax a baax xawaa bu ñu ñëwaatee ci yow tuuti en tant que animatrice parce que euh, Laurent wax na ko léegi bu ñu bàyyee ak lépp mais sur le terrain euh, euh, groupement yi nga xamante ni ñoom ngay dajeel waxtaan bi laa bëgg tamit xam fan ngay doole ak naka ngay jëflante ak ñoom sur le terrain waaw moo nan lay jëflanteeg ñoom defe naa waxoon naa ko fii danaa ci ñëwaat buñ ñëwee dañuy dugg ci benn quartier. waaw gis d'abord chef de quartier bi waxtaan ak moom. Mm-hmm. comme niñ koy waxee booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt bi. waaw sax balaa ñu naan ONG concept ñëwoon na fi mais. xamuñu xam xamuñu lan la fiy def te mm-hmm. chef de quartier lañ koy laaj. Mm-hmm. dañ koy gis waxtaan ak moom. bu pare après ñu def moom mu woo wóolu ci quartier bi ak ñu muy mm-hmm. àndal ñu defaral leen li ñuy wax sensibilisation des leaders d'opinion waxtaan waxtaan ñoom ci projet bi wax mission projet bi projet bi lan moo koy tax a jóor mais ci ci biir ci biir ci biir sensibilisation des leaders d'opinion dafay am ay groupe ay présidente groupement de femmes yi fa nekk mm-hmm. mais ñu dañuy àndaale ay fiche d' identification. mais bu ñu àggee dañuy identifier groupement yan ñoo fa nekk ci lan la ñuy yëngu. identifier def après def diagnostic bi. Mhm. jéem a rencontrer groupement boo xamante ne moo gën a actif comme Laurent ni mu ko waxee du ñu bedd kenn. Mhm. Mhm. mais groupement bu gën a actif bu gën a fiable ñu def ñoom démonstration criminelle wala ñu jéem a waxtaan ak jigéen mooy présidente yëpp. def ak ñoom démonstration criminelle. après ñu def ñoo ñoom encore li ñuy wax mobilisation à la parce que parce que finalité démonstration culinaire. ak ak mobilisation à la vente mooy ñu jaay. d'accord léegi dañuy ci biir ci biir mobilisation à la vente ca la ñuy def diagnostic bi xool force force euh, groupement bi ak faiblesse yi. ñun en tant que animatrice dañ koy jéem a jan dañ koy jéem a identifier. jéem jéem ko déceler. Mm-hmm. après xool xool nan la ñuy mën a agir pour régler situation. mais finalité bi je rappelle que que ñoom ñu lancé Laurent te bu ñu lancé woon ñun duñu leen bàyyi dañu leen di accompagner ci Laurent ni mu ko waxee formation coaching ak chaque fin du mois dañuy wàcc sur le terrain mm-hmm. collecte vente yi pour pour xam population bi ñaata ñaata ñaata ci population ñooy utiliser ci fu ma jàmm d'accord mais ci ci bële passé sax ma fàttali ñu ngi doon waxtaanee euh, bu ngeen ñëwee ci ci gox ba ba war a def euh, tubaab li muy wax culine la maanaam xeetu togg mhm. il faut ñu essayer togg ak fourne bi kenn ku ne tamit gis ci boppam muy genre concours waaye du concours mhm. xëy na pour essayer la rek nit ñi gis ci seen bopp loolu laa bëgg nag madame Ndiaye wax ñu yéen bi ñu ñëwee nag seen gox ba yéen ba ba def ak yéen boobu teg fourneau yi ngeen ñi togg fii ñi def fii naka ngeen leen jàngatee loolu biñ leen ko xaw a tàggatee. ci ci comme ça ma leeral foofu. ñoom amaguñu démonstration. d' ah, ñoom formation lañ am. ak coaching lañ amagum le moment parce que ñu ngi doog a lancé wu benn commande lañ am mais c' est sûr que danañ def ñoom démonstration culinaire. incha allah ñoom fi mu ne nii kon ñoom ñu ngi. coaching lañ am ak formation ñu ngi mhm. jaay. Mhm, mhm. ñoom gis nañ seen bopp a noo jàngatee formation bi ba pare. waaw ça s'est bien passé daal macha allah ça s'est très bien passé. non madame Ndiaye dégg nga Aminata dama bëgg nga mel ni ku nekk sa saal bi waxtaan. xaaral parce que fu a ngi lay déglu. xaaral soo ma décontracté. waaw kay waa Jëppal comme ñu waa Jëppal yi yaa yor seen kàddu fi mu nekk nii ñu waxtaan bu baax a <laughs> baax naka nga jàngatee formation bi ba pare. formation bi ça s'est bien passé. Oh, ça s'est très bien passé. non ci benn jour rek lañ ko def. benn journée waaw formation en entrepreneur mais ça s'est bien passé parce que ñun ñëpp bi ñuy dem ñoom bi ñuy dem ñun bi ñuy ñëw ñoom bi ñëw amul dara nekk woon suñu ah. mais macha allah bi ñuy dem bàyyi nañu lu bari. bi gis xam nga ni daal avancement am hmm, waaw avancement am parce que bi ma toogee ba ba ñu toogaat ba ñu réunion waat encore ba xaw a ci boppam indi benn fournisseur. Hmm. ñu toog di réunion di waxtaan waxtaan ak moom. ci ni ñuy ni ñuy mën ensemble. je me suis dit que comme ça c' est bien passé. ku ne jëppal li waaw xam ne d' accord ci mission bi nga xamante ni GPF yi ñu ngi koy liggéey ci biir projet bi lan lay leeral. waaw mission bi comme ni ñu ko waxee rek c' est d' abord des partenaires. waaw ku wax partenaire mooy ki nga xamante ne danga lëngoo moom. waaw lëngoo boobu ñu lëngoo nag si démarche bi dafa nekk une démarche horizontale. boo xamante ne maanaam ñun. dañuy xoolee seen bopp nit ki suñu bopp ndaxte boo leen xoolee ñoom seen wàllu bopp euh, tey jii mission bi ñu am d'abord ñoom dañ koy jëfandikoo jëfandikoo bi dafa am solo mm-hmm. nit ki soo gisee lu baax yaa ko war a njëkk jëriñoo laata nga koy jaay. comme ñu ne laax lekk balaa ngaa laax jaar. d'accord bi nu mu ko waxee. kon. c' une mission boo xamante ne qui est noble. Mm-hmm. beneen bi mooy lu ñu bëgg a wax mooy jigéen ñi ñoom ñoo gën a exposé wu parce que parce que bu ñuy togg santé bi wér gu yaram wér gu yaram sécurité bi. Mm-hmm. parce que nag bu ñu fàtte ne fourneau yi ci wàllu la nga xamante ne mooy wàllu wér gu yaram daf ci contribuer lu lu bëree bëri. d'accord ndaxte ñoom dañuy jël seen doom yi léeg-léeg ñu dugg si waañ bi di togg. wala gone gi ñoo fekk ci leen ci waañ bi. saxaar du la bëgg a rey saxaar du la bëgg a rey. ak yu mel noonu. Hmm. donc yooyu yëpp nekk na te et puis boo xoolee mission wu jigéen ñi tey ci biir loolu bu ñu demee ba nekk ay entrepreneur. Hmm. remarqué su ñu defaatee recensement. Hmm. ci jigéen ñi nga xamante ne ci wàllu koom ci wàllu entrepreneur nombre d' entrepreneurs yi war a am no wala nombre d' entreprise. wala entrepreneur euh, entrepreneuriat féminin. tey bu ñu ko doon renseigner au niveau du Sénégal wala au niveau rek normalement dañ ko war a dugal ci biir. parce que day nekk lu bees. loolu tamit dañ war a bàyyi xel. a baax d' accord kon daal mel na ni fi mu nekk nii. Ah. c' est un projet boo xamante ni jigéen ñi am nañ ci wàll bu baax a baax a baax war na nag soññ seen moroomu jigéen ñi. Euh, je pense que euh, ñoom sax ñu ngi soññante. waaw waaye gis nga jigéen ñi. Hmm. naa la yëgal benn affaire bi. gis nga ñoom cette solidarité féminine comme nuñ koy faral di waxee. Hmm. dafa nekk lu nekk Sénégal d' abord. maanaam jigéen ñi. Hmm. ñoom seen biir. dañuy yëg yëgoo ñoom dañuy yëgoo ñoom dañuy yëgoo ñoom dañuy dañuy jàppalante dañuy demlante donc loolu dafa am solo kon je pense que amoon na avis tey jii xam nga lu ñuy wax effet boule de neige maanaam loo xamante ne tey jii ñii ñooy tàmbale yóbbaale seen i morom ah, mbir mbir mi di gën di yaatu mayante loxo je pense que am na solo loo loo loolu moo fi nekk tey parce que ñoom ñi ngi ñi ngi demlante di deflante ak yu demee noonu te ñun loolu sax hmm. ngëneel la ci ñun parce que hmm. tey il faut que benn say hmm. jigéen ñi dem ba doon benn say waaw bu ñu doonee benn say nag lu ñu yóotu jot lu ñu yóotu jot waaw olof bi loolu la lépp xam nga bu ñu woonee bi loolu la mais olof bi nee na fi mu nekk boo yóotoo dara jotuloo ko kilo suuf yi xomtu ko jël ko jox la foofal kooku bu baax a baax. parce que tamit ni ko ni ko am Aminata Ndiaye waxee léegi nii dafa naa ni Pape Touré euh, comme seen càmmiñ la dem na ah, ba gis waaw gis gis gis projet bi. mu ni lii daal du ma ko bàyyi foog ma dem yóbbu ko sama gox donc kooku ndaanaan la kooku foog ñu remercier ko bu baax a baax mm. mais di fàttali mbokk yi déglu aussi euh, mun ngeen a bokk euh, xëy na am na lu ma fàtte wala yenn lu ngeen bëgg a dolli ci waxtaan bi laaj 88 ngeen def 628 05 05 88 628 05 05 88 628 05 05 mais ci avantage yi laa bëgg ñëw parce que xam naa ne comme Aminta moom ñoom ñu ngi leen tàggat lañ ñëw mais yéen ñi nga xam ne yéen a ngànk projet bi avantage yi nga xamante ni tey jii euh, ñoom GPF dinañ ko am ci biir projet bi nan la après nag xawaa dooru ñëw xam nga nag dafa neexul ñun ñuy ñun ñuy avantage non duñ jël nag. waaye ci ci lu ñu dégg. waaw dafa neexul ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy lëkkoog ñoom. ñoom ñi nga xamante ñooy ñooy bénéficiaires yi. ñooy jëfandikookaay. waaw ñoom ñoo gën a jekk pour yox avantage mais nag xam nañu ni ci kaw ay rapport yi ñuy jot. parce que ñun dañuy bind dañuy dañuy taataan. yaay évalué. waaw dañuy waaw dañuy taataan dañuy dañuy ci seen biir. ñuy waxtaan ak ñoom ak ñu demee noonu. Mm-hmm. waaye euh, comme ni ko euh, ni ko ni ko ñu bëri waxee. Mm-hmm. ñoom dañuy faral di wax ni Euh, fourneau yi d' abord. Hmm. Euh, liñ ci gën a taamu. Hmm. mooy déjà produit yi dafa diversifié wu. Mhm. maanaam ñu nga ci gis euh, takk ci rek. Hmm. gis ci jàmbaar seen. mooy bi ah, ah gis nga day jànga jàmbaar seen. gis ci taaru gis ci sakkanal. donc maanaam kenn ku nekk ci la nga bëgg a yitewoo donc boo déggee ay gaam. gaam bu amee rek kenn ku nekk ci la soxla foofu rek ngay diree dem jël boobu jëfandikoo bi am na si benn témoignage benn jigéen bu ma ne tey si njaayum fourneau jëkkëram daawul woon def benn activité d'accord dafa ñàkkoon xëyam mm-hmm. waaye ba ñu duggee ci groupement bi di jaay seen fourneau jëkkër ji dafa jàpp si njaay moom yi sax léegi jëkkër ji mm-hmm. dafa am un nouveau métier d'accord c'est la vente des foyers te gis nga kon soxnaam mm-hmm. euh, yemul rek ci moom kon ça veut dire këram bi nga xamante ne ñàkkoon na liggéeyam mm. ñàkkoon liggéeyam tey jii ba fourneau bi ñëwee borom këram dafa am un nouveau métier donc commencé dugg ci njaayum fourneau bi mm. kon gis nga yemul foofu ah. te aussi ñi ngi wax groupement yi groupement yi mais les jeunes aussi parce que ñun mm. ci biir dañu am lu ñuy wax élément donc c' est des jeunes yoo xamante dëgg la peut être ñu am émission ak ñooñu mais tey jigéen ñi GPF yi amaana moo ñu tax a jóg mais tamit ñuy fàttali ni jeunes yi aussi euh, ci la bokk donc beneen avantage bi nga xamante ne ay témoignage rek lay wax de. Mhm. maanaam li li ma nettali ak la ma gis. ak la ma dégg. samay nopp moom laa ne ak li ma fekkee moom laa mhm. nekk di nettali. pour rek parce que des fois euh, kenn mënul euh, sang sa bopp maanaam kenn mënul mhm. di jay sa bopp. mais moo tax may nettali la ma dégg. waaw te te te yàlla rek a tax. waaw ah, saabu du fóot boppam. kon boog beneen bi may jeexalee ci wàllu la nga xamante ne moom mooy wàllu avantage. te nga xamante ne tey. dégg naa ko ci te mu neex ma lool lool lool lool hmm. xam nga mooy lan. Hmm. moo di ni xam nga dañu jógoon projet bi nii nañu dem ba ci la nga xamante ni mooy les villages les plus reculés. d'accord tey jii am na ñoo xamante ni musuñu woon gis fourneau yi. du ci image du ci nett du ci dara. non xawaa du ma wax waa bokki jawe ah. yaa may dégg <laughs> alors ba ñu bañ ko bañ ko gisee. Euh. alors ñoom seen wàllu bopp. Euh. Euh, sàmm bi ñu ko sàmm. tax na ñenn ñi dañ ko defoon meebal. maanaam au lieu que ñu jëfandikoo ko. Hmm. ñu def ko meebal. alors que maanaam dañ koy ñeebantu. waaw alors que normalement dañ ko war a jëfandikoo. surtout voilà parce que lépp lu ñuy def pour jaww ji la. Hmm. maanaam defuñu ko pour mu doon meebal defuñu ko pour tiitaru. Ah. pour wax ne tey jii. am naa lii am na comme ñu cadré ko. dañ ko war a jël di ko jëfandikoo. def ko bool bu bees def ko loolu nag xam nga lu leen di dal chaque fois. chaque fois tey jigéen ñi tey même boo leen wàcceeloon tey ay ndab. waaw ndabu céet ga. Mhm. soo deful ndànk xam nga ndabu céet ga dañ ko dañ la ko yeb. pour nga waaw pour nga jëfandikoo ko foofu ci kër ga. Mhm. léeg-léeg ñaare boo ko laajee dix ans après koy won ca kaw armoire ba bes tàkk <laughs> alors loolu lu mel noonu euh, gis naa ko ci ba nga xamante ne euh, ndekete nit ki euh, dëgg la par réflexe la ko defee waaye nag euh, fourneau yi vraiment dañ ko war a di ko jëfandikoo kon avantage la non seulement ci kër gi mm-hmm. avantage la ci koñ gi mm-hmm. avantage la ci département bi avantage la dans le monde entier mm-hmm. moo tax nag ña ko financé di fonds vert pour le climat jeexal na ah. jeexal na wax comme comme ñi ngi doon waxtaanee wàllu climat bi ci jamono yi yëpp kay donc lii bu ñëwee day gën a appuyer waaye day gën a tamit jëmmal li nga xamante ni moom la ñuy waxtaan xamante ne mi ngi may yëngu ndax xanaa bëgg ma jox ko micro bi. ne <laughs> voilà xawaa ñu bu ñu ñëwee ci ci yow tuuti parce que avantage tamit am am na solo balaa ñuy ñëw ci peut-être difficulté yi ak euh, tamit euh, yeneen yi nga xam ne moom ngeen di rencontré. tey avantage yi en tant que animatrice boole demee ci gox yi euh, femmes yi li ñuy wax groupement yi. comme ni ma koy waxee avantage yi bëri na. parce que déjà objectif projet bi mooy dañuy contribuer à l' atténuation des émissions de gaz à effet de serre. te defe naa pollution bi ñëpp la laal. te ku ku ko ku jug tey pour xeex ko. yaa ngi contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de mm. yaa ngi dimbali xale yi doon feebar parce que feebar yi bëri na mm. sax jur la gis nit ku feebar. Mm. xamul lan moo ko feebar alors ko pollution bi la. ñun waxuñu dañ koy éliminer mais dañuy contribuer à l'atténuation parce que ñi kay xeex ah, bëri na benn la ci avantage. xam nga xam nga ndoguma la ñoo ñoom Aminata Ndiaye bu ñu amee tuuru xew yooyu seen tuur yooyu. Mm-hmm. bu ñu waree taalee ay mat ñu amee takk ci rëpp bi. ah waroon waaw ay dix kilos quinze kilos. bu mhm. ñu takk si rek bi kay euh, matt mi xeet geeg yooyu dina ko. dina ko bokk na ci avantage bi mooy formation bi gratuite la ñu fekk benn groupement formé la. Mhm. formation boo xamante ni tey boo wàccoon sur le terrain da ngay fay. Mhm. ñun ñu formé la gratuitement accompagné la gratuitement te boo jaayee sa poste ngay dugal. man animatrice laa. mosuma laajte groupement ñaata ngay jaayee sa fourneau. wala jaayee li sa fourneau. économiquement parlant dafa avantageux. boo ko ci raay bi pare nga ci. pare naa si du du ma ci ci xaalis. waaw côté côté bénéfice. Mm-hmm. pare naa si mais accompagnement lépp lu ma ci def. Mm-hmm. mettre à mettre ko sur place ba ñoom ñu écouler seen vente danaa ko mm-hmm. def. te defe naa Sénégal lañ nekk xam nañ formation dafa cher. trop merci. costume dafa cher. defe naa ñu may déglu xam nañ ko te loolu yëpp ñun dañ koy def gratuitement ci groupement yi kon nag avantage yi bëri na trop bëri na trop macha allah comme boobu lañ ci junj 88 la 628 05 05 88 628 05 05 ku woote rek incha allah am looy laajte dinañ la dugal ngir waxtaanee li nga xamante ni mooy foyer amélioré xam ngeen ko fur na jàmbaar yi nga xamante ni Euh, bëgg nañ nit ñi di ko jëfandikoo parce que am na ay avantages yu am solo yoo xamante ni mi ngi fi groupement de femmes yi nga xamante ni ñoom it euh, tànn leen ñu ci liggéey yooyu yëpp ñu ciy waxtaan bu baax a baax ñu dalal euh, Laurent Diène di chargé de suivi ci ak évaluation ONG Concept Aminata Ndiaye membre du groupement action pour le développement des Dieuppeul Awa Diallo bi animatrice ci biir euh, projet bu ni mel nuyu bu baax a baax mbokk auditeurs yeeg euh, safo yi Afia FM 93 point 0 alxames tey ji ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai jotaay waxtaan bi nag ñu yéen ci ngeen bokk képp ko am laaj rek incha allah mun nga woote 88 628 05 05 xawaa juste difficulté yi nga xamante ne di ngeen ko rencontré léeg-léeg bu ngeen demee sur le terrain ak tamit euh, ñi nga xamante ne ñooy groupement yi lan lan lay doon. waaw sëñ moo difficulté yi mën naa ne bëri na bëriwul. waaw bëri na parce que ñi jigéen ngay liggéeyandoo. Mm-hmm. du dana xaw a bëri mais tam nekk mën na la mën naa ne mën nañ ko surmonter sans problème. d'accord des fois comme ni ma ko waxee danga nga tase groupement boo xamante ni ñoo la ñoo la jiitu. ci terrain bi yàgg liggéeyandoo ak projet. gën laa ëpp la expérience. Mm-hmm. bi ñuy dugg ci développement amaana juddoo ko. Mm-hmm. c'est vrai que ñoom. des fois ñu xaw laa rouler. waaw mais à part loolu moom gisaguma ci difficulté boo xamante ne mënatuma kaa dépassé. mais ñi ngay waxal ñëpp daal ngay wax lépp daal ñu ngi koy jëndee daal. macha allah groupement bu maa ngi leen di nuyu de passage mu nekk groupement bu. Eh, amul far de non amul may accompagner bëre nañ mais tam maa ngi leen bu baax a baax di rafetlu tam liggéey bi ak collaboration bi. Hmm. parce lañ ma ko trop. waaw mais j'aime nag nga wax ñu li lay gën di neex boo demee di def ay animation formation ak groupement yi. lan moo may gën di neex mooy partage d' expérience ah. parce que man mënuma ñëw même buñ ma formé ci animation am na ñoo xamante ni sur le terrain am na loo xamante ni sur le terrain. nga koy jàng foofu nga koy gis fa fa nga koy jàngee. Mm-hmm. te ñëpp mën naa la ñi may liggéeyalool samay yaay lañ samay tata lañ te samay xarit lañ maa ci maa jàngee ci ñoom lu bëree bëree bëri. donc daal yaa ngi si gis sa bopp. Ah, waaw mbir mi gën a neex animation beeg yooyu yëpp. lépp lépp macha ah, allah. non du ma ne dama far nag quoi mais euh, ban place nga dem boo xamante ni marqué na la trop ci li nga xamante ni mooy animation yi. moor na boo duggee. <laughs> dégg nga lu ma la. moor dama macha allah ñoo xam ne place yoo xam ne nga def place yoo xam ne gumba dafay am wala xa àndaanaale. waaw yooyu yëpp mënu see ñàkk. mais daal bëgguma di cité. njëji di ma suivre ñoom ñëpp samay yaay lañ. Ah. samay xarit lañ bu ma dugal moom. Ah, waaw seen place moom neex na ma trop. <laughs> <laughs> tey nga tànn ko Aminata Ndiaye ko. Ah, ah neex na ko daal neex na ko daal. Aminata di tànn sa bopp. ah moom xam na. waaw. monsieur ah. monsieur Diémé tam xam na. waaw ñoo fa àndoon ñoo fa àndoon. moom bu ñëwee dana wax. Ah, ah, man nag euh, comme ni Awa waxee. sànq rek damaa jabootee ñëpp. waaw te nag euh, xam nga boo jabootee ñëpp. lu ñàkk ki nga xamante ni am na nu mu demee di nga ko wax ak moom ci suuf. Mhm. waaw ka nga xamante ne nag moom. Uh, waaw am far ka nga xam waaw góor la soxla. waaw dañ koy wax waaw góor. waaw mu mu nag ñoo xamante ne day mu am na ñoo xamante ne bëgg ci yow. waaw ah, yooyu yëpp am. parce que évaluation dafa am lu ñuy wax. pas satisfaisant peu satisfaisant assez satisfaisant. ak satisfaisant yooyu yooyu moom dafa am. xam nga waaye nag euh, comme ni ñu ko waxee. ku nekk rek. Euh, dafa am. am na lu loo xamante ne wane woo ko. mais ñun itam comme ni ñu koy waxee coaching bi loolu mooy njëriñam. voilà ak formation bi gunge bi accompagnement bi loolu mooy njëriñam. maanaam dinañu gis dara peut yow gisoo ko. Mhm. mais ñu fexe ba nga gis ko. sans pour ñu wax la ne la noonu nga mel. mais dinañu fexe ba nga gis ko. Mhm. gisal ko sa bopp. soo ko gisalee sa bopp. Mhm. ñu gunge la ngir dindil ko sa bopp. waaye ñun duñu la ko dindil. d'accord boo ko dindilee sa bopp. di def ba ci biir. nga gis ne kat nga ne ah yàlla ak moo tax ca njëlbéen nii la woon waaye yàlla jiw diw tax na ba tey mu demee neneen hmm. waaw d' accord d' accord euh, bu ñu ñëwaatee ci euh, soxna Aminta Dia Aminta da ngay jege micro bu baax a baax. Hmm. waaw damaa bëgg waa Jëppal dégg la bu baax baax tey jii nii. Hmm. xam nga lu ma bëggoon comprendre mooy bi ngeen defee formation bi bu pare ak coaching bi euh, ba toogaat yéen seen biir. naka la ñu jàngatee lii nga xamante ne mooy projet bi. jàngat jàngat ci jàngat jàngat bu rafet lañu ko jëlee parce que au début xam nga dëgg la daan nañu utiliser avant ñun daan nañu utiliser Funa Jàmbaar hmm. parce que xamoon nañu mais Funa yowoon ak léegi du benn daal léegi liggéey bi dafa gën dafa changé dafa gën a dëgër après par la suite ñu continuer noonu di ci waxtaan di ci waxtaan ak suñu président ci la ñu awa boole ak fournisseur bi on est parti le voir ñu dem sur le terrain. Mhm. man sama bopp sa personnellement ak madame Diouf ñoo dem bokk ci fournisseur bi ñu dem ñu xool liggéeyam. Mhm. on est parti on a vu on était satisfait tam. gis ngeen ni daal. waaw liggéey bi tamit waaw li ñu ci liggéey bi daal daf ñu doyoon nañu. yéen ñaata fournisseur ngeen yore fi nekk nii. pour le moment benn lañ commencé. benn ngeen yore ndax mun nañoo xam fu mu nekk yooyu parce que da ciy baax rek keneen ku bëgg tamit. mi ngi caaroy mi ngi caaroy mi ngi caaroy. waaw caaroy d' accord da ngay gëstu nag numéro bi ndax après bëgg naa nga joxeel ma numéro bi. Ah. xawaata bi te ak numéro yi yooyu parce que da ciy am solo trop. waaw mi ngi caaroy mi ngi saa sekk la tudd. lii caaroy ku baax tamit ku baax ku serviable am. yombalal na leen lépp waaw yombalal nañu yëpp yëpp yëpp sax takk ci rek moom bu ma ñëwee di ma ko yombal. ah incha allah non c'est pas cher na ñun suñu tournée c'est pas cher. non non c'est mais un message tey jii boo doon wax ak jigéen ñi surtout pour ñu jëfandikoo fourneau jàmbaar lu muy doon. leen di wax rek euh, fourneau yi xam nga. am comme ni ma doon waxee avant am tuuti. am na ñu bari xamuñu woon utilisation ni ñu koy utiliser. parce que da nga daan jël sa fourneau nga teg ci sa këriñ nga jël sa kuddu di ci dóor. ban bi toj. nga ne ah lii baaxul fekk yow yaa ko def. yaa ko yàq waaw yaa ko yàq. Mhm. Euh, mhm. jël di direct di def mu neex. bàyyi ko noonu mu taw mu wàcc mu gaaw dafay gaaw a yàq. parce que man am naa ñoo xam ne gis naa ne nee nañ seen fourneau bi ñu ciy utiliser di ça fait 10 ans. Mhm. te boo xoolee dafay mel ne démb lañ ko jënd. kon ça veut dire que fourneau yi baax nañu. c'est très économique te fourneau yi di ci gën a neex mooy yow soo toggee nii ba pare mën nga dindi xar yëpp nga continuer cuisson bi ci ban bi mhm. par contre su fekkee gaz bi la mhm. boo toggee foo faut nga fay mais bu dee fourneau bi la boo xamee ne yow lii dans dix minutes yooyu mu ñor mhm. mën nga dindi këriñ bi yëpp nga teg marmite bi mu continuer cuisson bi. non non yow du ma la bàyyee léegi. ndax ñu ngi lijjanti loolu ci ligne bi salaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum. soxna si na nga def. waaw ça va bien merci. voilà damay fàttali ne ku bëgg a bokk rek 88 ngay def 628 05 05. jërëjëf tur bi naan la. man la madame Dame Faxar. madame Dame Faxar Adja Sali Dame Faxar nekk présidente ko bu district nord. Mhm. mooy l'arrondissement des Parcelles Assainies. Parcelles Assainies un ba 26. waaw d'accord damay doon déglu seen émission. ah mu nekk euh, vraiment lu am njëriñ. Mhm. waaw waaw moo tax ma ne xaaral naa dugg. comme ñun dañoo am ay bàjjenu gox dans toutes les communes. d'accord te chaque commune est organisée. Mhm. am association. ba xam ne rek lii fu ko fa dugalee dina dina leen amal njëriñ daal. d'accord parce que pour allah noppal jigéen la. Mhm. noppal jigéen la ba pare aar la. ci sa mhm. atmosphère aar la ci sa environnement. macha allah. vraiment leer nañu trop surtout bi ma déggee ñu ne dafa am fuur tamit. Mhm. ma ne ah, moom dina jàppale jigéen ñi. waaw waaw waaw waaw vraiment ma xam moom li ñuy def. pour mhm. am partenariat ak ces les producteurs de Sunu Jàmbaar. vraiment loolu dina ma neex ko ci suñu gox yi. ndax ah. jën ñi dinañ ci gis seen bopp. dina leen xam nga Laurent mi ngi fi mooy chargé de suivi ak évaluation ak tamit xawaa di animatrice su projet bi. Euh, kon donc damay damay damay jël rek après ñu coordonné. ñu jox leen uh-huh. sa numéro. ndax euh, Laurent mi ne allo sax di ngeen mën a échange peut euh, si kanam ngeen mën a déggante. waaw comme ça nuyu naa la. maa ngi lay nuyu yëpp nag. merci beaucoup parce que bàjjenu gox ñu ngi def liggéey bu mucc ayib. parce que xam nañ ci ñu bëree bëri waaye wax dëgg yàlla am na solo. waaye bu soobee yàlla dégg nañu li nga wax. waaw euh, ñun ñu ngi waaj a def lu ñuy wax mise en relation maanaam jéem a lëkkale euh, fournisseurs yi ak euh, mbooleem GPF yi. Uh-huh. nga xamante ne ñoo war a sóobu foofu bu soobee yàlla bu amee contact bi ak xawaa suñu animatrice. bés bu ñuy planifier ndaje yooyu. du ñàkk ñu woo ci comme ça ngeen ñëw. mu nekk une rencontre directe avec eh, avec les fournisseurs. non dina ma nekk avec les quatre les quatre présidents communaux. bu soobee yàlla. waaw te je vais en parler aussi à ma présidente nationale. parce que lii lu la. daal. am am na solo des des des vraiment des douze districts de Dakar. dinañu neex moom parce que lii noppal jigéen la. madame Dafa merci euh, euh, merci beaucoup infiniment merci beaucoup merci beaucoup madame Dafa merci beaucoup. jërëjëf sant ko bu baax euh, gërëm ko madame Dafa ah xawaa dafa mel ni nag mbir yaa ngi yëngu de <laughs> ah. <laughs> xam nga ni mu ko waxee rek. Hmm. dañu wax ni effet média aussi dafa am solo. parce que tey rajo. Euh, moo di li nga xamante ne c'est le plus beau cadeau. waaw euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, vraiment lu ñuy def. Mm. kon tey mboolem rajo yi nga xamante ne ñun on a signé ak ñoom ay contrat mm. ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di xam ne itam. Mm. xam nañu seen rôle. moo tax on vous a contacté. et on avec vous. parce que xam nañu lan mooy seen i njëriñ. rawatina rajo communautaire yi. parce que dañoo soxla ku leen gunge. parce que li parce que li may wax xam naa voilà donc euh, loolu moo tax nag euh, surtout rajo communautaire yi. Mm-hmm. vraiment je plaide énormément fortement pour que mbooleem même les communes tout le monde. ñu mm-hmm. jéem a fexe naka la ñuy def. ba gunge leen dana ci am solo trop parce que dañu ne rajo communautaire. kon rajo askan wi c'est pour la communauté. Mm-hmm. donc c'est des associations. donc et qui dit association parce que nous avons les mêmes missions. effectivement ak rajo communautaire yi bokk mission. voilà donc dañu ciy bële dawaale la. merci beaucoup euh, euh, def xaaral balaa ma ñëw ci Aminata Ndiaye ñëw ci xawaa tuuti euh, xawaa ci alpulaar ak la bëgg. pour nga wax tuuti projet bi ak tamit ni ngay ni ngay animé projet yooyu en pulaar. message waaw surtout daf ciy baax trop ah. parce que tamit jaaykatu gerte caaf bi toog muy alpulaar wala muy joolaa wala muy njaago gis ci boppam quoi. bon loolu il faut ma wax la. maa la ko may tëral. voilà asalaamaaleykum bandiraɓe fulɓe mbiɗa moon salmina onon fof goto fof inde mum e yettode mum wala mi haala seeɗa projet rfa projet rfa ne ko taki ɗum immade waɗa contribué e polition pollution o ɓe allah hono kaaliron ɗum e pula haalere mais usta pollution o mais mais walla yimɓe ɓe e côté économique par ce que kala ganduɗo ganduɗo funno jambar anda nino ittinirta nino ittinirta këri mais Euh, war a participer en même temps à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre kono mbeɗe mbeɗe wiya kala nanɗo kam gonɗo groupement femme walla jeune mo gandanɗa ah, omo yiɗi yeey omo yiɗi yeey fourno jamba mbiyanmi sa ko foyer amélioré par ce que nder foyer amélioré waɗi fourno jamba waɗi fournoji goɗɗi on kam mbawi noddum min e euh, biyeteɗo salou ndiaye animatrice ti minen goni sur le terrain comme ça min gara min ƴeewoye moon min ɗo ɗo dal ɗofta ɗofta kala jeeyowo furno jamba mm. e eh, ɗoftugol ngol noon je rappelle que c'est gratuit onon son jeeyi furno jambar koye poche noon mbatton minen noon min jeeyani furno jambar onon jeeyoɓe onon jeeyata après mbaɗon e poche moon minen min jogui ko formation e kala ko woni coccé kala ko min mbawi wan min balla mo mbaɗon écouleur marchandise min maɗe mbaɗo inchallah jarama on jarama on jarama lora ɗumata on jarama naa dégg naa moom mooy mooy e <laughs> kon jarama bu baax a baax <laughs> madame Ndiaye Xawa Sall ci noonu nga xamante ni c'est un message boo xamante ni parce que kenn ku ne war na cee mën a gis boppam ah, kenn ku ne parce que rajo li nga waxee rajo communautaire bi ñu nekk nii ki toog ci bopp koñ bi di jaay gerte caaf sax daf cee am wàll parce que fii la ñemee ñëw wax gerte caafam boobu def naa bu demoon ci rajo privé bi buñ ko fayee boo def naa ne la muy jaay du ci am dara mm-hmm. donc ci rajo communautaire bii la mën a ñëw wax xalaatam euh, balaa ñuy def tour de table bi ndax waxtu bi moom xam naa li ci des bëreetul euh, Aminta fi ñu nekkoon sànqmaa yow am na solo trop donc dafa mel ni léegi biir kër yi bu leen neexee ni am na jàmbaar saxaar du leen rey di nga togg yàq taaj ñëpp lekk xet geek saxaar see yëpp du dugg sa saal du dugg sa déeg du gaañ sa doom du def dara lu loo xamante daal di la la gaañ kon daa jàpp nañ loolu waaw te man li ma si gën a neex jegeel micro bu baax li a mooy comme xam nga gaz yi mhm. léegi tedd tedd yi dafa baaxu wóorul wóorul parce que da ngay taal tey mu tàkk. suba mu tàkk bi waaw moom c'est pas mm-hmm. la tey en plus la koy taxé lu cher mais yow tey boo jëndoon sa furna jàmbaar tu es hors de danger. parce que du exploser sa kaw. Mm-hmm. da ngay da ngay lu bariwul boo jëndee ñaari kilo kër yi mun nga si togg sa añ. ak sa maanaam Sall wax na mun nga cee togg añ. même même gisoo four yi di ci avantage mooy. Mm-hmm. yow mën nga ci def sa ay pâtisserie. Mm-hmm. mën nga ci def sa ay méchoui mm-hmm. yëpp ci biir. yooyu yëpp même am na tamit ànd it ànd yaa ngi fi tamit. waaw waaw waaw. fi ak fourneau ataaya xam nga léegi booy takk ataaya ci gaz dafay bootaay bi këppoo. day fat sa gaz. day fat sa gaz te boo yoree sa fourneau bu ndaw. moom macha allah di nga sa léewal deuxième. te voilà attaay bi nga ci gën a bu ma ñu sax su ma teel sax. patron nga de waa Lora. Ah. koy summi. su ma teel sax moom. Ah, ku koy summi kay ñu laaj ko ko. Ah. njóobee bi ñoo koy summi. nañu essayé nañu essayé rek. yow daal gis a bien mais parce que am amoon ci ñun am na ñu bari ñoo xam daan nañu ko utiliser. kon xamoon nañu njëriñ mm-hmm. moo tax gisoo bi président ñëwee indi fourneau yi ci guddi bi pratiquement moitié fourneau yëpp dem na. jeex na waaw jeex na. d'accord ba ñu may waxee yow démb ci guddi rek ñu ngi may woo téléphone di ma laaj fourneau yi. kon daal fi ne commande yi nga def dafa bëri. waaw les commandes maam dafa bëri surtout maa yu bu fuur bi xam nga tabaski bi tam ñu ngi ñëw. Mm-hmm. ñu bari tam bëgg nañu parce que ñu bari dañuy utiliser marché ba léegi. waaw waaw. te match bi moom mi ngi xoolal bët yaay yëpp bët yëpp a ngi xool. soxna ngeen daal. waaw léegi ñu bari dañ koy ci pour na kii la bëgg. non yooyu yooyu il faut ñu il faut ma wutal ko naa leen si wutal. takk jër fii la bëgg mooy bu fourneau kii bi. four bi waaw mën na la gën a am incha allah bi maa ngi leen di xaar soo leen ñëwee daal incha allah di ngeen ko fekk. waaw bu fekkee am na am na tamit ay producteurs yoo seen numéro mun ko que c' est très xam aussi pour ne fi a dem fekk parce que des fois sax man dafa am parcelle ak grand yo xaw ma ak caare man na waaw ma nuyu sax Moussa de passage mu naa ne ma wóolu la parce que producteurs yi xam bëri na mais des fois da ngay choisir ñoo xamante ne ñoom nga gën a mën a defal boole leen ak jigéen hmm. ba pare maa ngi koy rafetlu bu baax a baax macha allah parce que man dama dem juste sur man moom daf ñu mettre la rapport ak Moussa ñu toog di waxante ak moom ci téléphone. ñu mhm. def suñu réunion yi ñu def ci waxante après dama dem ba Thiaroye fekk place am. Mhm. mais ma xool gis commencement ni muy commencé ba terminaison mais ça c'est bien fait daal. en tout cas fourneau c'est bien fait. Mhm. d' beneen bi ñu nuyu Cheikh Tidiane Mbaye ah, mu nekk fii parcelle moom mu nekk du producteur mais fournisseur. fournisseur la maanaam day jël ci mais moom fournisseur distributeur bu kii grossiste la quoi grossiste la en fait. moom maa ngi koy nuyu moom mi ngi parcelle unité 25. d' accord xanaa Grand Yoff ñàkkul ne am na mais peut-être Saliou Ndiaye xam naa bu fi nekkoon dana si ñëw wala ma bàyyi Laurent. waaw ñu ngi comme ni ñu ko waxee. ñu ngi am benn mission terrain bi ñu war a organiser ci. Euh, ci fan yi rek. c' est pour identifier l' ensemble des fournisseurs et des producteurs. comme ni mu la waxee sànq. waaw ñu ngi waaj a mën benn ndaje bu mag. moo mm. xamante ne mbooleem GPF yi groupement yi. Mm. ak producteurs fournisseurs yi dañ leen di lëkkale. Mm-hmm. comme ça ñoom ñu waxtaan seen biir. Mm. kon Grand Yoff bokk na ci ñoo xamante ne nañ fi jaar pour identifier. la nga xamante ne mooy fournisseur mais comme ñu ngi déglu si rajo bi. waaw képp koo xamante ne euh, fournisseur nga wala wala producteur nga. Mm-hmm. mën nga jël aussi numéro Hawa ak Saliou Ndiaye. mi nga xamante ne ñoom ñooy animateur yi sur le terrain. Mm-hmm. pour aussi ñu fetal mais ñun mission bi moom dañ koy def. parce que mois de juin bi moom. Mm-hmm. ce qui est clair. moo di ni on aura des grandes rencontres de mise en relation entre les GPF. et les incha allah ma ma am kenn ci ligne bi Afia FM salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si ñu ngi ngi sant bu baax a baax. tur bi nan la yaay booy. waaw man ah, nag rek laa fi doon xaar man. Ah, baa ngi nii de déglu nga ko de. waaw déglu naa ko ma ñu soxal ma lool nag. trop macha allah. waaw ndax dama ci a liggéey. waaw kay. ndax projet bi ñëwoon na fii gën a yokk. man ci ci producteur yi laa bokkoon. ok ñu ngi ko daan indi. femme yi gisoon ci seen bopp lool na dëgg la. waaw li ñu ci mujjee benn nawet la woon. ñu ne ban bi dafa manqué. d' mu am rupture nag mais ba léegi nag ñu ngi koy soxla. ndax zone climatique bi tax na ba ñëpp soxla nañ ko léegi. macha allah waaw. waaw mais mais fi mu nii comme loraan yi ngi fi euh, di ngeen mën a déggante rek après. Euh, comme ça ngeen def échange bi. waaw xawaa mi ngi fii def euh, xool fournisseurs yi nag ñu daal di ñëw indi leen ko ndax Grand Yoff soxla na ko. soxla nañ ko de keroog sax maa leen koy wax ci journée de l' alimentation. fële ci duuta fekk tafe nañ ko ba ma ñëw wax leen ko. seen stand ñëw naa ko ba wax leen loolu. d' maa ngi leen di day liggéey naa ci lu bëree bëri sax. Mm-hmm, mm-hmm. waaw. d' accord Laurent mi ngi lay dégg. waaw ah, comme moom mooy chargé de chargé de suivi évaluation xëy na bu demee mm-hmm. dina ko mën a yeggalee ñi nga xam ne. voilà yore projet bi. voilà. ne ko alors rek Laurent a baax a baax. waaw madame madame le maire vraiment ñu ngi rafetlu parce que bu ñu ñëwee ci seen commune. parce que nous aussi nous travaillons beaucoup avec les communes. ak euh, mboolem ñi nga xamante ne mooy euh, jigéen ñi donc yow tey bu fekkente ne leader d'opinion nga nga nekkoon ci itam am ci expérience bu bëree bëri donc euh, dinañ la jox contact ñëw ñu xool naka lañ lay seetsee wala nga seet si ñu ni ñu mënti def daal ba daje ñu gën a toog waxtaan balay ñuy def suñu mise en relation parce que ñun mise en relation entre producteurs fournisseurs et GPF yi bés bu amee parce que ça sera un grand moment vraiment de boo xamante ne lépp fa lay laloo quoi. kon donc su ko defee li nga wax sànq ñàkkul boo boo fa ñëwee. dinañu mën a lijjanti loolu lépp daal bu soobee yàlla si ma madame naka c'est madame Adama madame Touré ah. donc dinañu fexe ba échanger contact. ak boo bàyyee contact bi foofu ci. gars ci pend rek après dinañ la merci beaucoup ñu remercier ko bu baax a baax madame la maire dafa mel ni nag fi mu nekk nii bàjjenu gox yi ak kilifa yi ci gox bi fi ne ñi ngi commencé di yëngatu <laughs> mais c' est un projet boo xam c' est très important parce que dafa dafa amal gox donc ñun nga xamante ni ñun ñooy borom kër yi surtout góor ñi quoi. ah Laurent Bolom yow yow laay waxtaan. Euh, non man rajo bi sax si boppam laa commencé gis ni di am satisfaction ci ñoom. ci biir bi rajo oui parce que non rajo bi ci boppam. parce que li tax waaw parce que li tax. Euh, soo gisee mu doon benn kii interactif. Mm-hmm. muy wone ne gaa koy déglu. bàjjëlu boppam voilà gaa yi koy déglu kon loolu tamit euh, am na solo. donc mm-hmm. euh, pour ñun rëccu wuñu li taxoon. ñu ñu tàng leen daal. Mm-hmm. voilà man ah, na nekk. <laughs> non lu ngeen nangu ay partenaires ngeen. <laughs> man ay partenaire lañ dañuy liggéey en partenariat. ah ndax e man kat boo fa lay lora jàpp ci ba ma ne nañ ma indil fourneau bi ba tey. Euh, non dana ñëw. non boo boo ma ko waxoon man ci début. am ah, waaw waaw boo ma ko waxoon man man maa la koy indi fii. amiin ah, tey la lan alxames xanaa suba ci àjjuma war nga maa mën a jox fourneau. waaw ah, suba ci àjjuma ah wóor oh, parce que il faut. monsieur Diop daal na na na jàpp kii. waaw dinañ dina ñëw dina ñëw. Mor Ndeye waaw waaw ma xool kenn ci après jox la. waaw waaw euh, Afia FM salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna si tur bi nan la. Pape Fall bàjjenu gox Grand Yoff. bàjjenu gox bu Grand Yoff. waaw di liggéey tam ci maternité Grand Yoff nekk infirmière. waaw su ne fu jàmbaar sax nga war a di boyalee. foofu biir waaw man man de émission bi rek comme man femme de développement la. Mhm. ba pare yore ay groupement ci ci affaire yi. Mhm. ñi nga xamante ne ñi nga xam dañoo xam bourse familiale waa concept boole maa ñoom. waaw ma yore ñaari kees benn bi sama kër benn bi santé ba. ma dégg affaire eh, bi rek loolu intéressé la ma ne naa déplacé wu sax pour ñëw mën a gisante sama naataangoo yooyu. d'accord yow fu ne nii bëgg nga sa groupement nga bëgg ñu dugg ci biir wala am na ñoo xamante ne bëgg nga leen a ci biir projet bi. ah bëgg naa tey dugal leen parce que man un jour Lamine Ndiaye doon na ma woo sax mu nekk affaire. waaw ci concept. waaw doon na ma woo pour doon na ma boole ku ñuy wax Saalum Ndiaye. waaw. waaw waaye depuis loolu après jot jot ma déggante woo naa ko nag une fois mu nekkoon réunion. mais boobu ba tey maa ngi ci doon déglu mais xam naa ne nit yi moo ko jàpp. d'accord jot moo déggante waaw. comme moom ñëwul tey Laurent moo ñëw. Euh, ah. dama lay nuyonte la moom après moom xam naa dinaa def échange bi ci suuf ñu ngeen mën a changante ay numéro pour mën a déggante waat ne ko Laurent rek. maa ngi fi maa ngi sant bu baax a baax. Ah, euh, di dëggal li nga wax yëpp nag. Ah, euh, actuellement nii ki nga xamante ne mooy seen association di fàttali moo turé ne ASEC yi mm-hmm. ñun concept gunge nañ leen ba ñu créé lu ñuy wax association des ASEC. te tey euh, ci jamono yu ci lu gàtt dinañ leen woo association bi. Mhm. waajal leen ci li nga xamante ne moom mooy mise en relation bi parce que yéen suñuy partenaire naturel ngeen parce que da ngeen yàgg nekk suñu partenaire. Mhm. depuis ci yokk koom-koom bi. donc mënuñoo mënuñoo séddale ba pare bàyyi leen ko kooku mënul ah. nekk. te waaw waaw moom moom mënul nekk. léegi nag euh, bu soobee yàlla euh, mhm. association boobu des dinañu fexe ba mise en relation bi balay booba ñu def ci liggéey bu am solo ak euh, Awa Diallo ak Saliou Ndiaye boobu nga xamante ne euh, dëkk la xam naa dafa jàpp rek. ndaxte moom itam mi ngi tout le temps sur le terrain Lamine Ndiaye aussi ñu ngi koy passage. mais yow na sa xel dal parce que yéen suñuy partenaires yéen si kër gi ngeen bokk. waaw kooku kooku yarul gi waa kii bu soobee. incha waaw Baye Diène man moom fu mu toll dinaa ko fàttali incha allah. waaw waaw waaw dëgg la parce que man rappelé naa Saalum mais saa ma ko wooyee effectivement. day fekk mu jàpp. day nekk si terrain bi waaw day fekk mu jàpp waaw comme Lamine rek suñu càmmiñ bu baax boobu nga xamante ne ñoom dañ ñu teppee teg ñu si yoon bu baax. macha allah ba léegi femmes yi fi ñu tegoon ba léegi ñu ne la fa. ñu bëgg nag dañoo bëri de. waaw di gunge femmes yi. Mhm. ci lépp nag te ñëpp ñoom ñoo ñu ko jàngal. waaw ak madame Saabu maa ngi koy nuyu de passage. ñëpp macha allah kontaan nañ ma. tournée yi nag moom yàqante nañ ko moom. parce que man jotoon naa def lancement sama groupement yëpp ba wax leen chaque jour nag ñu ma koy rappelé naan ma bàyyi jàpp si tournée yi toog. may woo directrice chaque jour nag def ko rappelé. mu naan ma incha allah bis ñu ñëwee bi ñu waree tiire dinaa la ko wax. looloo tax sax dama mujj déplacé wu ba ñëw ba ci rajo bi. ñun est-ce que ñun rajo Afia duñ jëm sax ñu ne nekk ay producteurs. wala fournisseurs ah parce que buñ jaaxlee rek fii lañ jëm. non Afia kay na nekk fournisseur rek benn yoon. waaw ah dinañu neex de. ah dina am solo moom trop kon. dinañu neex de day jàppale sax si ñun. non dinañ ci waxtaan incha allah. waaw incha allah jërëjëfal nañ la bu baax a baax. kontaan nañ ñu ngi nuyu de passage suñu directrice bi ñaaw bi. kenn lañu ci ñaar suñu koy jaay jëppal ci jaay jëppal waa rajo Afia yëpp ndax yëpp dañu koy yombalal ci kàttanu yàlla luñ ci bëgg rek ci suñu sët la comme ni ñu ko waxee jërëjëf nañ bu baax a baax merci beaucoup ñu nuyu waa Matam nit bu yëpp waaw ñu ko dégg merci beaucoup voilà ñu sant ko bu baax euh, gërëm ko waa maternité bu Grand Yoff euh, ñoom tamit euh, ci ni ñu bokkee xawa voilà voilà parce que loolu am mooy te mais naka nga jàngatee fi mu ne participation parce que man bokkoon naa ci ñi ci doon wax rajo communautaire yi bëriwuñu impact. ci réunion <laughs> yi mais franchement pour prouvé nañ ma le parce que sa jour sama téléphone dafay sonné. fu ma dem ñu naan ma damaa déglu rajo. foofu laa déggee foofu laa déggee foofu laa jëlee sa numéro téléphone. Ah. kon nag. maa ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax dinaa dinaa ñoom daal dinaa bàjjen yeeg ñooñu ñooy disponible lañ pour gunge leen incha allah. moom kay il faut ngeen andil ma ko parce que maa ko doon wax ci réunion yi fu ñu waxee ma naa leen déedéet rajo communautaire bi amul impact. mais dama ko xamutoon. dama ko xamutoon parce que comme keroog li ma la wax ma naa la nit ñi soo fantaluñu fur na jàmbaar dañ ko xamul. mais man it sama fantaluma rajo communautaire dama ko xamut bu baax a baax. madame nga Aminta Aminta tey sa gis-gis ci émission bi balaa ñuy tàggatoo lan ngay. waaw kontaan naa trop waaw kontaan naa trop kontaan naa trop. maa di remercier yéen waa rajo fii ah, Afia. di ñaan yàlla tamit ñun tamit suñu commune bi tamit ñu am bu genre bu mel nii. wala xamante xamante ni dañuy jokka dëkk comme day dëkkandoo lañu jëppale Grand Yoff pratiquement benn la ñaan yàlla ñun tamit ñu am suñu rajo communautaire tamit comme ah. ñuy dina <laughs> bëgg waaw mais bëgg naa ñëwaat émission mais tamit su ma amee rajo communautaire yéen tam ngeen am la dañuy dañuy kii rek xam nga day bu waxaa day gën a pourquoi pas <laughs> pourquoi pas <laughs> jërëjëf pourquoi mais mais mais lan ngay ban message tamit jëmale ko tamit seen groupement aussi. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout suñu sama waa groupement bi. Hmm. suñu présidente bi mami Ndiaye ak suñu tata moom tamit mère ku baax la hmm. dëgg la mag la. daf ñu taxaw taxaw nañu taxawu yaay taxaw taal taxaw yëpp lu ñu lu ñuy jaay moom moo njëkk taxaw mu jënd ko mm-hmm. même ba ci fourneau yi dafa gis rek moom moo njëkk jël ci fourneau yi mm-hmm. moom ak présidente bi ak ci yeeg mais fourneau yi daal fourneau fourneau yu baax la nañ ci continuer nañ gis nañ ci suñu njëriñ daal waaw te commande yi tamit ñu ngi ñëw ñu ñaan yàlla rek ñu ñëpp ñëpp taal am fourneau parce que fourneau bi daal moo gën a wóor waaw comme ni seen groupement bi jëppal jëppal jëppal jëppal on lañ nekk. Mhm. waaw ci suñu siège bi kër président bi la kër Pape moom ak ko lépp. ci wetu Ousmane Socé Diop. waaw ci wetu Ousmane Socé Diop kër Pape moom. waaw boo dee waaw boo laajtee rek waa GIE ADC. Mhm. groupement pour action pour le développement communautaire. waaw pour le communautaire. merci beaucoup ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm xëy na beneen émission bii di ñëw waaw mais yaa koy animé. Lora. yaa koy animé. Lora. ñu ñu door a ñu ñu joxe nag kàddu bu mujj gi eh, ndax eh, am na solo trop ci li nga xamante ni waxtaane nañ ko ak ñi nga xamante ni aussi participé nañ tey jii dolli bi lan lay doon surtout ñi nga xamante ne xëy na bëgg nañoo ñëw parce que dégg nañ affaire bi tamit xam fu ñuy jaar pour ñoo mun a bokk ci projet bi. waaw d' abord euh, ñu ngi gërëm képp koo xamante ne participé nga si émission bi yaa woote jël sa buumu jokkoo jokkook ñun. Mhm. loolu tamit euh, vraiment ñu ngi koy rafetlu te képp ku fi jaar itam euh, da ngaa wax ni da ngaa bëgg bokk. Mhm. te ñun itam yaatal lañu la ñu nekk di def kon wolof Njaay dafa wax ne ku ragal si néeg ak ku fu muy fanaan. tëjal buntu bi waru leen boole. Mm-hmm. kon boog ma yaakaar ni kon ñoom itam loolu moo ñu dal. Mm-hmm. kon su ko defee eh, yaakaar naa ne loolu lu war a mën a nekk la. Mm-hmm. donc danañu wéy ci loola. beneen ba mooy eh, di eh, gërëm itam suñu président Amadou Dione. mi nga xamante ne mooy président concept. ki nga xamante ne wax dëgg yàlla tey bu ñu see fii moom ci la bokk. di gërëm itam madame sàll bi fi jaaroon parce que mooy coordinatrice su projet bi. Euh, di gërëm mbooleem ñi nga xam mooy animateur surtout le personnel terrain. Mm-hmm. parce qu'ils sont en train de faire un travail remarquable. extraordinaire donc euh, ñu ñun itam ñu ngi leen di gërëm di leen gën a ñaax ci loola. Mm-hmm. te itam di euh, gën a gërëm itam mbooleem groupement yi nga xamante ne tey ñoo ngi liggéey ca la nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy yi. Mm-hmm. tey di gërëb itam not ONG partenaire parce que tamit des fois day am lu ñuy wax euh, ONG partenaire mm-hmm. lu mel ni COPMES euh, mm-hmm. président Tom Khady Gueye donc euh, ñoom itam ils vont collaborer di nuyu Nogay Baar itam mi nekk association bi nga xamante ni mooy des ASEC mm-hmm. donc commune bi aussi wax dëgg yàlla ñu ngi nuyu monsieur le maire d'accord en passant par madame la maire bi woote woon sax waaw parce que man itam Grand Yoff euh, sama Grand Yoff la parce que 72 laa ñëwoon Grand Yoff ba 2001. d'accord donc mu nekk loo xamante ne vraiment maa ngi koy rafetlu di nuyu aussi seen directrice. Mm. parce que tamit pour wane ne suñu partenariat ñu ne yéen. Mm. donc yaakaar naa ne nañ ko gën a yaatal. macha allah si kattanu yàlla. donc di gërëm ñëpp yow dina gërëm Mor. merci ndaxte wane nga sa xarañte ci wàllu liggéey bi. dañ maa bett. donc euh, loolu am na solo. dañ maa bett de. xam nga man damay soxna si mi ngi utilisé fourneau jamaa waaye dañ maa bett buñ ma waxoon kon ma indaale sama fourneau comme xawaa nangoo li dëgg sax ah, di la gën a baax. sànq maa ngi koy wax bi ñuy sa ne temps baa ngi jàll. loolu tam defe na sa xaranteeg. def nañ waxtu ak lu toog. boo ma ci jaaxate doo yëg ne muy jàll des fois may def émission bi na heure bi jot na. Ah. mais franchement ak léeg-léeg mais kii dana la andil foto jàmbaar takk ci. bi ngay laaj sax baax moom du la naax dana la ko am. dinaa lay incha allah non mooy kan bëgg a ne boo ma naxee sax neex na. non dinaa lay de donc bàyyi bu ma amul takk si ci am ni mbàkk xanaa. lépp ngay am lépp ngay am lépp ngay am. mais ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax sant leen euh, ñu fàttali mbokk yi euh, ONG concept lëkkaloo ci ak rajo Afia FM 93 point 0 jotaay waxtaan bi ci foyer amélioré yi de promotion Fourno Jambaar rajo Afia FM tey jii ñu dalaloon Laurent Diène di chargé du suivi évaluation ONG Concept Aminata Ndiaye membre du groupement action pour le développement de Dieuppeul Hawa Diallo di animatrice euh, bu projet bi nga xamante ni moom la ñu waxtaanee léegi mbokk yéen ñi nga xamante ni ñëpp def ngeen 88 628 05 05 ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñi nga xamante ni aussi ñu ngi doon déglu ñu ngi leen di sant bu baax ñoom it di leen gërëm bu baax a baax ci tamit topp gi. Mamadou Kayte ñu sant ko bu baax gërëm ko moom ci réalisation bi Mor Gueye moo nekkoon ci kàddu gi mbokk yi di leen jox dëgg daje ci ay yeneeni bés ci beneen jotaayu waxtaan boo xamante ni dafa ñeel projet foyer amélioré bi nga xamante ne moom lañ doon waxtaanee fii ci rajo Afia FM yendu ak jàmm